Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi sawir du'a tamkin. Ama ba'du. Mbokk juliti, mbokk talibé yi ñu ngi leen nuyu baax ziar di balak. balaq tey bal ak Dinyani ñaan borom mu boole ñu jéggal moom mi nga xam ne moom mu jéggal naka gudd fan ak wér ba lim yéen a liggéeyal lislaam ji sunu borom defal ko lu kaw njortam te lépp ñu ànd koog moom yow mi bëgg àgg ci yàlla subhanahu wa taala li ak xasida la goo xam ne ak kayam dañ mukk jàpp ko bu baax xasida gi mu ngi tudd batul buro wa daf xatul xasida lay ñor di jëmale ci lu baax di la jiñal ak wor xasida gi dalay jëme ci lu baax di la maytul lu bon Serigne Touba muy jaamu bi allah subhanahu wa taala te liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko way ngir jëmm allah subhanahu wa taala ngir yegge ci ak selal ci ngir yare ci ak yegge ci ak selal ci murit yi aji ci mom yow murit bi li male lay digal japp ko baax kon di nga am eh, li nga bëgg del jital xam-xam tek ci def boo bëggee am li nga bëgg del jàng eh, tey jëfe xam-xam nag day dundal ab xol di leeral bakkan di ko sori ay lëndëm xam-xam xam ak diine ci leen rawante du ci waaye du ca askan du ci wàllu nday ak baay kon xam-xam ak diine ci leen rawante yow mi yaa ngi hamham, xam-xam eh, kon del sàkku ak njub akuk ak eh, tiyaba yomi jang jàng del sàkku ndimbal ci ya yalla subhanahu wa taala te koy ngir jëmam po tol del jang tay samonté ndax sunu borom fëgg ab buntam ngir aajo mu ubbil la kon del jang tay jëfé tay roy ñu bax ñu yuñ sa bakkan ab gaay la bëgg waye bu ca ak moom ca bakkan ay nelaw lay bari day bëgg waye bul ko bari sa bakkan wuuteeg yoon lay bëgg waye bul ko top kep ku lay galankor ci yalla subhanahu wa taala bayiko amna lu mat ñe juroom yëf yo xamni day tax ag ci yalla subhanahu wa taala bi ci ndek moy toko mbolo dana waral ak top dana waral deug deug ak top kon ñaaral moy kep kuy jubul nga bàyyi ko nga baña and ak mom ñettel ba moy ngay ak xaq yalla subhanahu wa taala ci mbindeef juróomeel ba moy ñentel ba moy sàmm xaq yalla subhanahu wa taala ci mbindeef juróomeel ba moy digg dom baña baña yow mi yegg ci yalla subhanahu wa taala amna lu mat ñent non yo xamni faaw euh, kon amna ñent non yo xamni faaw ñoom door yegg te ñooy bakkan bànneex àdduna euh, ku ne ci ñoom am na foo ko war a tëj kon ku ne ñoom am na foo ko war a tëj yor nan ngànnaay loo xam ne danga ko war a dam loolu moo lay mën a àggale ci yàlla subhanahu woo taala seytaane dee ko tëj ci xiif bu digg doom àdduna dee ko tëj ci bàyyi képp koo xam ne jubul bañ a ànd moom euh, bakkan dee ko tëj ci néewal ay nelaw bànneex dee ko teg ci noppi yow murit bi jàppal teggin yi yow murit bi del taqoo teggin yi dina la musal ci balaa ak lépp lu ñaaw bokk na ci teggin yërëm koo mag koo mag wekk def na sa bopp ku toll ak yow bokk na ci teggin di laabari ñëpp képp ko xam day mooy yàlla subhanahu wa taala ah, dee ko ak tuub Ah, képp ko xam ne day mooy yàlla subhanahu wa taala de ko yéene ak tuub yonente bi sallallahu alayhi wa sama xeet yi duñ denc ci aw yiw li fekk gone yi ñoo ngi wet mag ñi mag ñi di yëram gone yi kon bul sàkku ci kenn xaq yel sel xaq yi yell nga di leen matale ba bëggee raw say morom bul toog ak ku mag ci kaw lal lu lu mënta ñàkk waralu ko boo toog ak moom da ngay taraxlu tey tey wàcc sa bopp kon da ngay toroxlu te wacc sa bop kep koy sàkk ci mom barke ci mom bul toog mom ci kaw lal bo toog ak mom bul ko ñuuxu te moy sa rikk ci mom da ngay selal sa xol bokku na ci teggini bayyi bakari ak ayibi kep ku len bayyi di nga xam kumpa yi bokk na ci teggin di jéggal képp ku la tooñ ngir jëm yàlla subhanahu wa taala bokk na ci teggin bari looy jàng alquran ak jullit yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yal yàlla dolli yonante bi xéewali sax dàkk moo koy ñooy am ak i saxaabaam li feeg murid bi moo ngi topp ki koy jëriñu kon yàlla na jariñ kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla sàmm suturaal yàlla na yàlla boole jéggal nga xam ne fépp fu ñu déggee wax dañuy seet la ci xëpp njëriñ ñu jël ko jariñoo ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa